فجأني بما به فجاناك باق مميت والبقاء جانا فجأني بما به فجاناك باق مميت والبقاء جانا فجأني بما به فجانا باق مميت والبقاء جانا فجأني بما به فجانا باق مميت والبقاء جانا قولي قول يحجل المرجانا والدر والياقوت والسجانا للواحد القحار من لي بانا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki jullit yi mbokki taalibe yi njabootuk Serigne Mouhamadou Rokhaya Mbacké sunu jëwriñ di Serigne Cheikh Anta Mbacke mu Serigne Modou Rokhaya ñu ñaan sun borom yàggal ko fi lool doole ak wéram mu mel ne sëriñ bi daf ñoo joxoon ndigal ndigal loo xam ne bu nu jàppee ne 1991 ba mille 2021 fanweeri at la. cent 1991 la Serigne Touba Cheikh Saliou Mbacke njëkk a jox Serigne Modou Rokhaya liggéeyub Xelkom mu di ab gor. de di fanweeri at yoo xam ne ba suufu Xelkom nekkee ab forêt ba bisub tey bii yàlla baaxee na njabootu maam Cheikh Anta waaye jaar ci seen buntu kër sëñ Modou Mamoun. kër sëñ Modou Mamoun seen buntu néeg ba di kër sëñ Modou Rokhaya mosuñoo manqué fanweeri at yooyu wooteeb Xelkom at mu jekk wuyu si nañ ci. wuji nañ Serigne Saliou fukki at ak juróom-ñaar ci Xelkom ba dégg ngërëmam ànd ak Serigne Cheikh di ko gunge ci Xelkom tey jii di ci fukki at ak ñett ren muy fanweeri at ak ñett yoo xam ne sunu jàmbaar ji dimbali nañu woote buñ mas a woote Xelkom wuy si nañ ko yàlla nañ ko wuy si waat at yu bëree baree bari sëriñ seex nag ba muy woote yàgg ngeen a dégg muy wax ne. bu ma sëriñ Touba joxoñoon ab xare su dee guddi du ma xaal bët set ndax wóor na ma ne soldaar yi ma àndal kenn du daw su dee bët set du ma xaar mu naaj ndax wóor na ma ne na saxaaba yi jaayante woon ak yàlla jaayante koog yonent bi noonu ngeen jaayante ak sëriñ Modou Rokhaya waxoon it ci aw làmmiñam ne sant naa yàlla sant sëñ Modou Rokhaya ndax tànnal na ma borom pëste fii boole ma ak ñoom ba lépp lu muy liggéeyal sëriñ Touba ñeme naa song loola. liggéey bii nag keroog bi ku ko Serigne Saliou joxoñee 1996 di le 27 juillet 1996 ñu gàmm ba ca ngoon sunu jàmbaar ji dem àjjana di Serigne Modou Rokhaya ñu ñaanal ko 97 lañ sëñ wu jox ngóobum Daaru Salaam gii Serigne Cheikh Anta di jëwriñ ja ba nu fi ñëwee xam ngeen ne dañoo fekk tool yi gunóor yi naan ko ba dugub amu ci. sëriñ bi takk ak laxasaayam dem ci sëriñ Saaliwu na ko man damaa demoon ca tool ya fekk naa daa Tuubaa xel koom am dugub fekk naa daaru Xuddoos am dugub fekk naa Ndindi am dugub fekk naa daaru Tansil am dugub fekk naa daarul Minan am dugub fekk naa daaru Rahman am dugub juróom-benni daara yooyu yëpp moo ko góob ba ko juróom-ñaareel di daaru Salaam nag fa la maam Seex Anta njëkk Sëriñ Tuubaa njëkk a def teraanga te fekkuma fa dugub. ndax nee na gunóor yi dañ koo naan ma bëgg nag bis neke tey lu ko weesu saa yu ma dematee naa fa fekk dugub Serigne Saliou na ko lool de kenn mësuma koo wax waaye tàgg bi gim tàbbi sama nopp am na fa njariñ waaye 1999 ba bisu tey saa yuñ góobee Daaru Salaam jenn daara du ko daan kon ñaan googa am na njariñ sëriñ bi nag ba muy woote daa waxoon ne lii ndabul xiiwal la loo xam ne sëriñ Touba Cheikh Saliou moo ñu ko taajal fasuma ko yéenee jariñoo bàyyi kenn ndax ñi ma àndal ab sàmm laa ci ñoom te waxoon naa leen na leen danaa xool tànkub sëñ Modou Rokhaya di saytu mbooloo mi ma booleel ba fu ma ko gisee na ko mbooloo mag ma dénkoon ni kenn manqué wu ci waaye àdduna nag benn tànk képp laa ciy xool te mooy tànkub sëñ Modou Rokhaya te fa su ma yéene mu raw ma looloo tax du ngeen dégg ma woo leen ci benn liggéey boo xam ne maa ko moom du ay tabax du jëndum oto du leneen saa yu ma leen wooye rek su ngoon jotee sëñ Touba leen di fay ndax ci sëñ laa leen di woo loolu na ba muy woote da koo tàmbale woon ci jëwriñ yi nga xam ne seen maam ya ak seen baay ya ñoo laxasaay woon ànd ak borom gaawaan ba ndigal lu sëñ Touba mas jox borom gaawaan borom gaawaan daane ndigal loola ndax seen maam yu baax ya ndigal lu sëñ Touba mas a jox sëñ Mudu Maamun mu daane ndigal loola ngir seen maam yu baax ya ndigal lu sëñ Touba mas a jox sëñ Mudu Roqaya mu daane ndigal loola ngir seen baay yu baax ya moom mii ndigal nu ko sëñ Tuubaa mas a jox danañ ko daane ngir ànd gi ñu ak moom moo taxoon mu woo Serigne Modou Mamoun Dia Daaru Salaam Serigne bi sëñ Modou Mamoun ak mbooloo mi mu àndal ñëpp wuy si nañ la seriñ Modou Fari Daaru Baaxum xalifab sëñ Góora Baaxum ànd na doomam Serigne Daaru Baaxum mbooloo ma ñëpp wuy si nañ la démb lañ xëy suba toog. ba takkusaan gisuñu oto dañoo fanaanee toog ba oto ba fekk leen fa ñu ne buñ fa doon dem di fa dagg wenn gubi duñ dëpp buñ deen dem fekk tool yi da nañ dem ndax sëriñ benn woote fa suñu yéene dëpp te wuji wuñ ko ñoom ñëpp ñëw nañ njabootuk sëriñ Cheikh mbay Longhor xam ngeen ne barki démb la leen sëriñ bi yabaloon te tooli Longhor ñu doon ko góobi muy tool boo xam ne da koy bayal sëriñ Modou Rokhaya di ko teg ci loxol sëriñ Cheikh mu di ko jox njabootuk sëriñ Touba gi ña fa wuy ji na leen sëriñ Mor sila Njalab njabootam gépp ñëw nañ sëriñ Modou Rokhaya Sylla moom it ak sëñ Moutou Couleur ñoom ñëpp ñëw nañ ànd ak seenu njaboot sëriñ Moussa Thiam Thiamène sëriñ Dame Thiam Mbar ñoom ñëpp seenu njaboot ñëw nañ ñu ànd ak ñoom sëriñ Ndonga Mbay Sinjaan alaaji sëriñ Ndiaye Ngoye Xem sëriñ Cheikh Dieng Daaru Sugeer sëriñ Abdoulaye Tine Kër Coon sëriñ Pape Daaru Kibaari Serigne Modou Diom Bambey Séeréer Serigne Modou Mbacké Fall sëñ Mass Ngom ñëw na ànd ak waa kër ga ñëpp Serigne Jibril Sung Réfon Serigne Abdou Dieng Darou Salaam Serigne Abdou Dieng Darou Kibari Serigne Ibrahima Ndaw Tallañ Serigne Basirou Babu waa kër Baay Youssou Babu Serigne bi fo sëñ Bass Babu ñaanal ko sëriñ Bass Babou daa jaayante bañ daataaka départ la jënd aw nag ne lépp sama poos lu ci nekk su ngeen ma ko laajee danaa ko joxe ndax bu ma sañoon sëñ Cheikh du lamb poosam na ko ñaanal yàlla doole ay xiwalam lim am yaa ko gënal li ne ci poosam yaa ko gënal te waxoon naa sëñ Modou Ro xëyee ca mille neuf cent mille quatre-vingt-trois na leen nañ boolewaat li ne ci poos yi jox ko ndéem bëgg ngeen soxla su ñëw ngeen faj ko kon nag ginnaaw jox na leen ne ci poosam bu poosam gentati na fees dellu ak taal poosi taalibe yi Serigne Ibrahima Ndaw Talla ñëw na Serigne Mouhamad Tukulóor njabootu sëñ mu Tukulóor Jeng di Serigne Modou Mamoun Jeng ak ñam ànd ak ñoom ñëpp ñëw nañ Serigne Aliou Faye ngangaram ñëw na ak Serigne Omar Faye Serigne Dame Diouf kokki moom it ñëw na sëriñ Mbay Sall njabootu sëriñ Mbay Sall njaareem ñëw nañ sëriñ Seex Ndiaye Baku Njéeme di jëwriñu alaaji sëriñ Ndiaye ñëw na njabootu sëriñ Maxtaar Silla Ndindi ñoom ñëpp ñëw nañ sëriñ Ousmane Diouf Tongol ñëw na sëriñ Modou Samb Touba Njalbeer ñëw na sëriñ Gora Fay moom it ñëw na sëriñ Jibril Sung Refon ñëw na njabootu sëriñ Adama fay ñoom ñëpp àndandoo nañ ñëw di njabootu maam Lamine fay mu mel ne bi ñu wootee seex bu ñu woo ba nga déggee woote bi ñoom ñëpp takk nañ seen i laxasaay ànd ak seenu njaboot sëriñ bi démb lam njaboot gi fanaan si juróom-benni tool la tool bu ne mat na kilomètre bu yaatoo juróomi téeméeri mètre bi 11 di jot mbu aw gub wu ñuy dagg desatut ci tool bi. biñ ne dañuy lippi ñu ne nañ wutee oto sëñ jili woo ma na ma gaasu al bu ñu lippee dañ ma ne na ndox mun naan doy dañ koy yenu yóbbu ko ci tool ya waaye foofu sëriñ bi sa waa kër soxna Fat Thiam ak sëriñ Modou Thiam camion bee la ñu gaare duy ko ndox ba ci biti ñu duyaat ko beneen bi des jën ba mu fe ba ne ci biti ñu ne fa suñu kiyee ne kenn mar fi ba ñu tàmbalee ba fi mu oto otom ndox dugut ci tool yi kuy naan ndoxum sase muñ galaase rek ngay naan te ma nga nee jeexut na nga leen ñaanal yàlla doolu seen i xiwal sëñ Abdou Góore Mbaay nag ca Pire ànd naag waa Pire ak sëñ Modou Mamoun Diagne li tax ma taxaw ci dafa wax ne ci tool yi la tàmbalee góob te yaa ci dugal muy taalibeb sëriñ Saliou bu masaa di ñëw sa mbooloo lay àndal ak jëmmi boppam muy sëtub Alaaji Moussa Mbaye waaye suñ borom dimbali ko mu ne ci tool yi ba barki dee mboo njaay ñu woo ko ci ab dëkk jébbal ko lu mat juróom-ñetti fukki gone ak benn yoo xam ne yëpp ñun ko ne yaa dox suñu diggante ak Serigne Touba mu ne loolu nag Serigne Touba defaloon na ko sama maam El Hadj Moussa Mbaye waaye doon mu ci woon benn dongo bi mu ànd ak yow ci liggéey bi la ko suñu borom jox mbooloo moomu ba muy ñëw dana am dëkk boo xam ne mbaay la ñuy wuyoo te mbaayam ji la ñuy wuyoo te nee na wóor na ko nag xel koom la ko jëlee kon nag dana woon naa ko jottali bëgguma la genn kàddu rek. di jëm Serigne Touba. damaa doog a Serigne Touba mii. si yow waa kër Serigne ci Modou Rakke. ngeen di kenn mu Serigne Saliou sama kanam. si si nekk France. ngeen dajale juróomi million. mu ne yóbbul na ko joxal na ma ko Serigne Touba Serigne Saliou la ba nga di maa ngi toog ci kanamu Serigne Saliou. ba nga di daa fi sori yéen ñi ànd ak Sëñ Anta dama leen bëgg a dimbali fexe leen am ngërëm ndax mu am na ngërëm ngeen ngërëm xel koom kii ma génnee xel koom xel koom lépp dox yaa baax yaa ngi yàgg ci mu mel ne sëriñ bi démb bi ñu financé bi ñu xëyee po jàmbaar yooyu nga xam ne seen maam yaak sëñ gaawaane woon seen baay ak sëñ Modou Mamoun ak sëñ Modou Rokhaya ñoom ñi fi des ñu laxasaayu ànd ak yow bi 11h di jot dagg nañ tool yëpp li ci des ñu ne dañ koy yanu jaag nañ ko ba noppi jaag ba fukki mètre ak ñaar la yaatoo guddee juróom-benn fukki mètre ak juróom-benn am taxawaay yëpp ñaari mètre lépp duy nañ ko ba ne ca kaw. loolee nag li nu ko may xam nañ ko mooy sunu jàmbaar ja Serigne Modou Rokhaya dafa wax ne su mu doon tey te ma xamee ko nii du ma jàng wenn araf damay liggéeyali sëñ Touba ndax wóor na ma ne li ma mën a jëlee ci liggéeyal sëñ Touba mënu ma ko ca ci am njàng. te moom day ku ko gën a jege sëñ Touba amut du ci nday du ci bay moom mii ku gën a jege sëñ amut du ci nday du ci baay jàng ba li nga war a jàng lépp nga jàng ko jënde ko ak taalibe ku la gis defe na xamoo dara. waaye loolu la muy tagtale mooy xam ne li nekk ci liggéeyal sëñ Touba nekkul ci diggante yaari feggu li nekk ci liggéeyal sëñ Touba nekkul ci diggante yaari feggu waxoon naa leen ko fii ci Daaru Salaam daa am benn tukulóor boo xam ne daa nekkoon France bokk ci ñi yàlla dimbale wutoon muy xool Serigne Saliou muy woote xel koom muy wax ne kii laaj na ndaw ñi yóbbu leen ci ab àll di leen exploité. di leen liggéeyloo waaye yàlla dogal na bëtam musta te xel koom musta gis Serigne Saliou taraak yooyu mu di ko yónnee Sénégal ba yàlla dimbali ko mu tëdd guddi gént gis Serigne Touba gént dem yowmal xiyaam nee na ma toog gis mbooloo mi bari lool ñu ne ma ma ne fii mooy fan ñu ne ma yaa ngi bis penc yaa ngi yowmal xiyaam mu ne damaa dee ñu ne ko dee nga bu yàgg mu ne ah fii de xawma lan mooma fi mën a musal nee na am ku dend ak moom ne ko ndax mas ngaa dem xel koom ma ne ko déedéet mu ne ma seenal mbooloo mee ñu jiital ubbil nañ leen seen bunti àjjana Serigne Saliou woo taxaw ci bunt ba na ku mas a dem xel koom ñëwal. nee na ma yuuxu bi mu yeewoo jëm si senegal bi mu duggee oto daa jaar fii dem Fuuta jël ak njabootam andi leen teg leen ci suufu xel koom daat na lii rek moo mënoon na dox sama digganteeg ma am jàmm dem jébbal boppam Serigne Saliou. loolu moo taxoon Serigne Saliou ne bu ma wóoroon ne ñëpp teg nañ seen tànk xel koom ma bàyyee woote xel koom ndax dana ma wóor ne ñëpp seen aajo faju na Serigne bi nag bëgg a faj aajo moo tax mu wàññi xel koom Serigne bi day faral di wax ne xel koom bëgg aw tur yóbbuwuma fa njëkkante yóbbuwuma fa wane wi yóbbuwuma fa damaa ànd ak mbooloo te bëgg seen fa aajo faju tey it damaa bëgg bu ëllëgee kenn du leen ëppale moo tax fu ma seen waaru sëñ Tuubaa wa yebal leen fa. wóor na ko ne bu ko sëriñ seex joxoon tool yi xel koom yi mu wooñu ñun ñii kenn du dellu ca defaluñ ko ko ay jaag delloo ko te wóor ngeen ne mën nañ ko man ngeen ne waat na mën nañ ko moo tax nag sëriñ bi wax ne da leen a sant cant gi ci jëkk mooy xam ngeen ne suukaru koor si barki demb rek la kere ba nga koy jox sëriñ Touba Cheikh Mouhamadoul Mountakha dajale nañ fii ba dajale un million cent wala un million yu tegal bàyyi Serigne waat na ko lii la bi dajale mu yëkkatiwaat lim bu ëpp loola def ko ci ab enveloppe na la ma sëñ Sidi Muxtaar waxoon kat laay waxaat suukar si bu ma ko ab Abdel lay doon ñu di ko séen waaye sama suukar nag bu ma ko defee ci enveloppe jox ko señ sëñ Muntaxa lu ko neex mu def ko ndax meew lay doon dem jébbal ko sëñ Touba Cheikh Mamadou Muntaxa te xaar fa mu jox ko ndox moom naan ba mu fa jógee màggalug Daaru Salaam teru xam nee na ci turu taalibe yëpp nag la ko joxe ba mu fa jógee màggalu Daaru Salaam teru mu ne leen juróomi fan yi màggal yi bu dara manqué ci ñu ko yët sëriñ Abo mi nga xam ne moom la fi yàlla teg muy sëñ Muudu Maamun ndax ku sëñ Muudu Maamun ma sa jur nga doon xalifab sëñ Muudu Maamun làq na sa ngërëm ku maam seexante ma sa jur nga di jamonoonteeg moom làq na sa ngërëm ba noppi nag làq ngërëmul doomi sëriñ Tuubaa yi làq ngërëmul sëti sëñ Tuubaa yi loolu nag lan moo koy maye mbokk yi kenn ku ci xam suba la wala ginnaaw suba la amut te sëñ Tuba mas naa woo mbooloo mi ci njaareem na leen ndax xam ngeen bitim réew man ñëpp taxaw kenn ku nekk di jaaxle Serigne Touba ne leen bitim réew mooy fii ñu ne réew ma mooy alaxira ñun ñëpp dañoo tukki si daal di wax leen ne ndax xam ngeen ku war a tukki ñu ne ko déedéet mu andi ab këriñ andi aw xal andi ab doom tegale leen dij mag ñi daa di joxoñ këriñ ba ne kee da wërta tukki ñu ne ko lu tax mu ne daa yomba soppi kii teg baaraam ba ca xalwa daa di ne xalwa it wërta tukki ñu ne ko lu tax mu ne daa yomba soppi kii fab xalima ga teg ca doom ba daa di fab doom laal ca baaraam ba laal ko nit ñi ne kii moo war a tukki kenn mënu koo soppi ku ko laal mu weex kum laal nga weex loolu nag mooy murit loolu mooy murit moo taxoon mu ne ginnaaw da ngeen a ñëw bitim réew dee leen yóbboonte ca réew ma ndax réew ma nangu wut yóbbaale alaxira nangu na yóbbante waaye nangu wut yóbbaale kuy dem doo yóbbaale dara dañ lay xottil mëneen bu mu yees waaye portable bi jabar yi oto yi kër yi dara du la ci topp xam nga lu la fay fekk la nga yóbbante woon mooy lu mel ne xel koom la nga yóbbante woon mooy suukaru koor la nga yóbbante woon mooy màggalu daaru salaam nga la nga yóbbante woon mooy tabaski la nga yóbbante woon mooy màggalu Tuuba li nga yóbbante woon mooy gàmmu gi la nga yóbbante woon mooy addiye ji ngay joxe murit da yóbbante yowmal xiyaam moo tax sëriñ bi murit yaa ngi sant murit yaa ngi ñaan nga yàgg fi te wér su yàlla joxee ku yombut sëñ Moustapha ma sàmba na woon lu yombut ku yamba di rek ko yàq ku am lu yombut da ngay xam ne am nga lu yombut sëriñ bi sa ñaar rakk yi sa rakk yëpp ñaana leen waaye xaasal leen. sëñ Abdou Khadir àllarba la fanaan si ba ma départ rek la départ ba muy ñëw baasaguñ fii waaye dafa wax ne soxla ci lii lépp lu dul bi am li mu bëgg. te bu ma sañoon néegam boobee du ko génn poosam ba du ko làmb te li bëgg lépp daañu ko ko defal sëñ bi dencu dara aswaatu la yor di yalwaan billaahi te li muy yalwaan lu dul rek dab bànneexub taalibe yi ak am sa ngërëm taxut mu di ko def. Serigne Mbacke ba mi ñëw ab camion la duy wut teraangaam ba mu di ko jàppale ba mu xëyee sarak yi ci des yëpp fekk leen fi sëñ Xaadim ñëw na sëñ Mambala ñëw na sëñ Cheikh Gaynde ñëw na sëñ Mamoun mu ndaw ñëw na sëñ Maxtaar ñëw na ñoom ñëpp ñëw ànd ak moom ci liggéey bi ñu ànd ak taalibe yi. sëñ Mamoun mu mag it sëñ bi neena moo ko ñëwal waaw daam am gàllankoor waaye moo ko ñëwal waaye sëriñ bi taalibe yi de. sànni wuñ seen alal daa am luñ bëgg ñu sànni wuñ seen alal daa am luñ bëgg te sëñ Ablaye daa waxoon ne lu nit fekk ci kilifaam na ko gërëme yàlla su ca amee lu ko naqari na xarab yàlla ndax kilifa kenn du ko sàkkal sa bopp yàllaa koy sàkkal nit loo ca fekk nag sa sansa waaye sëriñ bi ndokk ba mu wóoree ne sëñ Muudu Maamun sëñ Tuubaa waxoon ne amul bàkkaar sëñ Modou Rokhaya sëñ Abdou Khadir moo waxoon na sëñ Touba wax na ko murid saadix la ñun ñii ñëpp mu yar ñu xam ko ñu xam ko nga ñëw wuutu ko melokaan woonu wonoon wudut woow sëñ Modou Rokhaya dañuy maslaak yow waaye ànd gu du dëgg waaye ndokk ba nga dikkee nag gën ñoo gëm sëñ Modou Rokhaya gën ñoo bëgg sëñ Modou Rokhaya ba noppi am yërmande ci taalibe yi lépp looy def su noppee nga ne def naa ko addiyee sëñ Modou Rokhaya te man dey man dey du ma waxantu to lu ma leen wax ci sëñ Modou Rokhaya dëgg la ndax ku ma ko gën a xam ne ku ci kaw suuf moo mii jox na ma ay xari tabaski mel na ma seex seex diwaan si ko jënd mel na ma Moustapha Ndiaye moo ko jënd ñu yónnee ko ko mu nekk Ndakaaru na ma yotal sëñ bi xar ma ma ma fab xar di ko yët sëñ Modou Rokhaya muy ñaari xar timi sëñ Modou Lo xëy na ma li ngay andi lu ma ne ko xari sëriñ Seex ya mu ne ma ñaata xar la ma ne ko ñaar mu ne ma delloo ko soxlawu ma coggal ren laa bëgg a tàmbalee tabaski na ma jëndal xar mu mag dama daan rey xarum sëñ Modou Mamoun di rey moom borom gaawante daawu ma rey samam xar tey jii nag damaa bëgg moo xam ne man mii la Modou Mamoun jur ma koy reyal am xar waaye moom maa ko jur damaa bëgg mu may jëndal am xar ma woo ko ne ko sëñ bi nee na bëggut ñaari xar yi menn xar la bëgg mu ne ma nañ dem ci seen gétt ga ma xool xar ma ci ëpp ma jënd mu ni toll wallahi ba ñu agsee xarum bàyyi isma mbaw fa ëpp di xar mu sokola mu xool ko ànd ak seex gaawaan ka ñu dem ci ëppal bu nekk Mbàkke waxaale fa am xar jënd ko ci fanweeri junni ak benn mu jox ma ko ma andil ko sëñ Modou Rokhaya ba ma agsee sëñ Modou na ma sa waa ji jàmbaar la ma ne ko lool gisuma moroomam mu ne ma ah, dalaa doy ma ne ko ah waaw waaw mu ma ma bàyyi yàlla ak moom bu ëllëgee ma ko déedéet maa moom ñun ñaar ñëpp ëllëg sa kanam lañ jëm si. wallaahi Abdou Gaye nga fa toog sëñ Abdou nga fa toog sëñ Afeja nga fa toog ma ne ko ñun ñaar ñëpp ëllëg ci sa kanam lañ jëm si mu ne ma ëllëg mën naa fa dara barke alxuraanul karim loolu mosuma dégg sëriñ bu ko jël engagement. ëllëg mën naa fa dara la ko fa mënal dara nag. mooy xaw a dee liggéey jox sëñ Touba ba sëñ Touba jox ko lu leer nañ ñun làmbatuwuñ liñ téye moom la làmbatuwuñ liñ téye moom la muy jàmbaar sëñ Modou Rokhaya gërëm ko sëriñ Saliou lii sëñ Abdou Gora Mbaye di wax bay sëriñ Wade mii la ñu àndal sëñ Modou Mamoun Diagne Cheikh Béthio Thioune ma nga fa toog yal na yàlla dolli ay ay irmandeem Serigne bi ñëw waxak sëriñ Serigne Saliou ba noppi sëñ Saliou woo nañu jege ko bàyyi sëñ Wade da ngi nii toog sëñ Saliou nañu digal naa leen ngeen sàkku ngërëmam ku am ngërëmam am sama ngërëm ndax man ngërëm naa ko loolu win sëñ Saliou woo ko digal wér na sëriñ Touba Cheikh Sidi El ñu ànd ak sëriñ Asgede waxtu timis booba réew maa ngi ci ab campagne président bii nekk tey di Macky Sall fekk ñu fa den ak sëriñ bii nuyoo ak moom ba noppi sëñ Sidi Moxtaar nuyoo leen mu ne ko damaa bëgg a ñëw dugg ci réew mi ngir wuti ko biñ sëlmalee timis sëñ Sidi Moxtaar daa di ne sëñ As Guédé na ko ñaanal sëriñ Seex aw fanam gudd ndax sama xol daa sedd ci moom sëñ Sidi Moxtaar na ko man mii la sama xol sedd ci moom te sama xol bu sedd li muy jariñ dama leen ko bëgg a wax ngeen dégg ko daa di mën a bàyyi mbeen andu sil yow mi mën a jàpp ay wax bi ma ñëwee mu ne ma dafa am at moo xam ne dafa dafa taw ba gerte ndox mi arrêté daaru marnaan ci daara sëriñ Awa Balla di moom sëñ Sidi Muxtaar mii di sëñ Tuba am naawal laa sol am naawal na ma xam am naawal man mooy li am kanam ak ginnaaw ta loolu faari mbaam la am naawal dara du ko téye sëñ Seex Awa Balla bind ab leetar fasal ma ko ci sama catul mbubu nawa dawal fekkal ma sa baay Mbàkke Kajoor sëñ Baara nga jox ko leetar bi nee na ma daw Mbàkke Kajoor bi ma demee ku wax Mor Binta Aw tuddaat na ci keneen mu fecc leetar bi jàng ko bi mu daa jóg dugg ci biir tontu leetar ba damaa bëgg ngeen jariñu rek tontu jox fasalaat ma ko namal dama jox ko sa baay nee bi ma dikkee fekk jox ko mu teg ko jàng ko daal jóg dugg ci biir génne ñeenti suuf ak ñeenti bu loolu xaalis la woon génne bekki suukar yu toll ne ak almet boole ci warga ak suukar jox ma na ma ndax sa xol sedd na ne ma booba fukki at ak ñett laa am ma ne ko sama xol sedd na guy ndax booba defe naa dutuma jeexal xaalis nee na ma am ndox laa bëgg te booba xaw sax dara waaye nee na ban julee gee la tàmbalee taw ban juli faja nee na Cheikh Awa Balla ma ma ñëw mu ne ma sa baay Cheikh Mouhamadou Lamine Baara moom sëñ Touba moo ma ne ku seral sax xol yàlla faj aajoom daal ne kon man sama xol bu set day faj aajo daal wax ne loolee nag rafaatale naa ko sëñ Cheikh Anta kon sëñ bi murid yaa ngi nii na sa xol sedd ci ñoom bu sa xol seddee sunu aajo faju bu xoolub sëriñ bi seedeel sunu aajo faju waa Kaolack sëriñ Sidi Jaxate démb leen ñëwaan ànd ak mbooloo waa Louga kenn koo xam ne des na ci amul sëñ bi ñii la la yàlla bo ñii la la sëñ patana ñii la la sëñ Modou Rokhaya rafatale ñii ñooy ñi nga xam boo woote fekk la liggéey baa ngi ni nag noppi na xamul na ñibbi xamuñ dañuy jotaat leneen ndigal xamuñ lu ñuy def loo wax rek ñu def loolu waaye daal na la wóor ne tool yi ñu ñu andi woon daal góob nañ ko leem nañ ko teg nañ ko fële jaag ba juróom-benn fukki mètre ak juróom-benn la sëñ daam ca amee ko jiite woon yaatuwaay ba fukki mètre ak ñaar la taxawaay ba ca kaw ñaari mètre la lii daal mooy liñ fi nekk woon lekk gi nag lépp des na naan gi lépp des na xéwal yi dara manqué wu ñun ñëpp dañuy sant sëñ Tuubaa rek sëñ Mamour Bousso Touba Mbambilor ay oto la jël bi mu agsee oto bi mu njëkk a jël daa paan mu jëlaat beneen oto fayaat ko ñaar fukki junni te yàqalu ko yeneen oto yi ci des mbooloo mu dul jeex la jëlee Mbambilor andi leen ñi ngi fii toog te moom nee na gëstuwut kenn xoolut kenn yow rek lay xool loo ko joxoñ mu def loole kon daal sëñ bi mbooloo maa ngi nii na sunuy aajo faju fu ngeen seen ma taxaw ak sëñ Muntaxa wala ma toog ak moom nee na boppam taxu ko faa toog de waaye mbooloo mii ko sëñ Tuubaa booleel nee na ñun daal la bañ kenn ëpp la ci séddaleb sëñ Tuubaa bi nee na bëggutit kenn ëpp la ñu ci séddaleb sëñ Muntaxa bi te sëñ Muntaxa day daa am mayug boppam fii mu toll nii ngiir la ngir ngiir li nag nee na bu nu ci kenn ëppale nee na moom nag dana taxaw tam ba fu ñu teg ndab buñ teeyee ma teey buñ dee giir ma giir jox leen jërë ngeen jëf na ñëpp nangu ñaan إلى سواي كل من أداني بصرف باق ذكر أداني إلى سواي كل من أداني بصرف باق ذكر حداني